Gueye gis nañ barki démb le 23. nga marché bi nga xamante ne contre ñu borom ñaari tur ñu gis na nag am na bataaxal bi nga xamante ne ñoom ñi ngi nekk France am wax nañ ko lu gën a yéem nit ñi nag mooy dañu interdire kii di xalif général des Tidianes mu dugg France loolu ci ñu mais man ak sëñ Modou Lo Ngabou la ñu jëkk a plainte en octobre 2020 ndax xam nga sëñ Modou Lo Ngabou Jamra dafa defoon déclaration sargal ko ci acte bu am solo bu mu defoon foofu ci dëkk bu tedd bi ndax moom dafay def. bu ñu dëgmalee xew mu mag màggal ziar wala leneen mu ànd ak ay kuréelam ñu dugg ci ruq-ruqaan yi ak ci luuma yi luñ fa gis lu dëppoowul ak li neex sëñ Touba ñu nangu ko moo tax confisqué nañu ay junniy junniy string jumbux out ak check down affaire ñàkk jom yooyu la waaye nag ñu ñu jàpp fukki borom ñaari tur patam patamee leen génn leen Touba sànni leen sa biti ne leen fii du fi seen place dëkk bu sàll bi ndegete ñoom dem nañu boole ko ak seen najaay ya nekk France mu di ADEOS benn kuréelu góor jigéen boo xam ne ay association góor jigéen yu bari la ëmb dal di porte plainte sëñ Modou nga ngabbu ñun Jamra ñu yëg ko ñu def déclaration nee ko sëñ Modou na sa xel dal kii du sa combat combat wu bi la ndax yow nekk la fi Touba rek yaa ngi xeexal uma bi yëpp ci wàllu xeex ak sellal ma di ko tooñ sax ne ko maak Makhtar Sarr bu Axiru Zaman waxtaan nañu dañu bëgg bu gàmmu gi passé ñu ñëw seet si la pour que ñu def benn programme de tournée samp ay cellules Axiru euh, euh, kii Safinatul Aman Tiwaawan Njaasaan Canaba mu ne déet loolu ëpp na ñu ne ko ah kay ñooñu bu yeboo ñu tuddee ko nu mu leen neexee ni Touba amee une police de mœurs noonu la yeneen këru diine euh, amee police de mœurs ndéem yéen ñi ko am la góor jigéen ñi ñëw foofu di fa def naka su dul noonu kon ñenn ñi tam foog ñu jël seen seen matuwaay alors bref Euh, ñu def déclaration bi euh, fësal ko suñu soutien naka la ko kuréelu góor jigéen France yi defaat beneen plainte daal di bind Gérard Darmanin ministre de l'intérieur nee ko sëñ Modou Lo Ngabou bi nga xam ne extrémiste religieux di fitnaal góor jigéen yi dàq leen Touba am na benn waay bu ñu wax Mame Makhtar bu buy Jamra def na déclaration ne def koy jàppale kon ñu boole ko ci plainte bi ñu daal di ma boole ci plainte bi muy ñaar. c'était euh, en octobre et novembre 2020 waaw ñoo xam ne mbon gi ñu nekkee hmm? waa plainte bi nee nañu ñi ngi sàkku ci état français ñu xañ Makhtar Gueye ak sëñ Modou Lo le droit de séjourner sur le territoire français dal di ne nag nañ ko yaatal ba ci ñaar fukki réew ak juróom-ñaar yi seq espace Schengen kon ñu dàq ñu fépp loolu la moo ne ci plainte bi même plante bi nag moom la ñu jël ginnaaw bi ñu yàlla mayee ndam ci rassemblement bu mag bii nga xam ne këru diine yëpp ñëwoon nañ te ànd sàmm jikko sos ko maa ngi fàttalik ne ambassade ñi di ko coalition la ni parti politique amee coalition ñun tam dañu am suñu coalition la ligue des imams a ngi ci biir le rassemblement islamique ngi ci biir jamra ngi ci biir société civile sax mu nekk fanweeri kuréel ñu seet ku dal ku am tegginte am xam ñu di ko wax euh, Serigne Ababacar Mbow moom moo ko jiite coordonné ko alors ñu daal di def xew-xew bu mag fii le 23 jullit yëpp kontaan ñëpp wax ne bugguñu ko fi daganal lii ni ñu ko daganalee Gabon daganal ko Centrafrique daganal nañ ko Île Maurice Cap Vert bi sës rëkk ci ñun daganal nañ ko xam nga du ñuy ñëw ba toog ba mbir mi ne rëll suñu kaw rek ñu daan yaa moo tax wala dafa ne xuddiku bala ngaa lakkale. alors rassemblement bi daal di réussir mu metti góor jigéen ya nekk France même même góor jigéen yooyu plainte sëñ Modou Lo Ngabou plainte Jamra bindaat plainte. daa di ne ministre de l'intérieur waaw plainte bañ la yónnee woon contre sëñ Modou Lo bu Makhtar ak Karim Xrum Xax yaatal nañ ko na nga ci dugal xalif généraux yi particulièrement sëñ Mountakha Mbacké Bassirou particulièrement sëñ Babacar Sy Mansour ma ne nag ah yëf yi ëpp na jot na nguur gi wax ak nag parce que suñu xalifa yi du ñu nangu kenn ñàkke leen tegin rawatina di leen jébbal ak plainte góor jigéen góor jigéen nga xam ne yow àdduna bi yëpp waroon wëbatiku plainte la yow yaay plainte musiba bi ngeen nekkee nga xam ne suñu borom rëbb na leen fukki yoon ak juróom benn ci téere alxuraan suratul ankabut suratul anfal suratul uhud suratul anbiyaay di wax musiba bi ngeen nekkee ba ci suñu mbokk catholique yi sax seen téere bi ñuy wax lévitique chapitre 18 verset 22 suñu borom nee na coucher avec un homme comme on couche avec une femme est une abomination kon 98 pour cent des croyants de sa pays bëgguñu ko waa yéen ngeen bëgguñu ko imposé ñu ne ñoo lànk ngeen ne da ngeen di porter plainte sëñ Mountakha ak sëñ Babacar kon xalif yooyu affaire bi du seen problème affaire ñun askanu Sénégal askanu Sénégal ñoo war a wane fulla yemale ñooña parce que ay lâche la ñu dañu France la ñu toog bind kii bi. waroon nañ ko bind interdiction génn dëkk bi est-ce que état sa nga war voilà ndax ñu dem. waaw léegi nag li ma bëgg a leeral. nit ñi dañuy defe ne waaw comme que euh, wax nañu ne sëñ Mountakha sëñ euh, Babacar Sy Mansour ak euh, saafinatul amaan jamra ak ñi nekk ci plainte bi yëpp euh, wax nañu ne euh, dañ leen di plainte pour interdire leen de terri de séjour sur le territoire français et dans tout l'espace Schengen alors vraiment c'est fini demeewul noonu de ADEOS France LGBT France amul benn pouvoir de décision administrative na leer ñoom dañu sàkku rek sàkku teef la dañu bindalee Gérard Darmanin ministre de l'Intérieur di sàkku loolu ci moom mais ça ne veut absolument rien dire d'ailleurs euh, euh, waaj a leen sax parce que man sama plainte bañ ma plainte octobre la woon euh, novembre ba léegi gouvernement yi waxu ci Safinatul Aman plainte am sëñ Modou Lo octobre loon woon ba léegi gouvernement français addu ci parce que kuréelu góor jigéen la rek boo xam ne dafa ne ci mbonam te nee na mbon mi bu ko kenn tudd dinañ ko lawale tasaare ko Sénégal ba Sénégal ñu dagal fi ngóor jigéen waaye bu kenn wax waaw loolu Euh, ministre de l'intérieur France bi la lu mu mën ci loolu moo tax ñun dañ leen di bàyyi ñu cëppi cëppi kebetu waaye suñu programme dinañ continuer di ko dérouler jusqu'à la criminalisation de l'homosexualité incha allah